Euh, tàllal na ko lamp branchement sociaux yi dix semis yi réfection boulevard Abdou Diouf bii nga xam ni ngir kat ndax bu jàpp nañu waa Louga waruñu doon ay kaw-kaw lu am Magic Land xale yi mën di foo mag yi ñëw di doxantu mu bëgg a def fee waa ay ñoo xam ne kenn xamul ñu doon né du fi amé lool ñun duñ ko nangu Moustapha ñu lay naan nga dalal sa xel ndax kat le destin ndeke c'est une réalité ndeke président Macky Sall juumul. nit ñi mu ngeen di liggéey bokk foo xam ne yéenay sottandoo ci même ndab da ngeen a war a bokk ndey bokk baay di ndoo di dóorandoo loolu mooy may doole seen leader. kon may lancé un appel di ko lancé 23 comités yi nekk ci Louga yëpp di wax rek ñu joxante loxo bokk ndey bokk baay xàccandoo dóorandoo may ma ndam lii nag Ibrahima def. dama japp ne commencé na damay dog di dor man sama campagne électorale digg naa ko bis naka tay fi ci Algérie dina dina commencé recevoir les 23 comités de Louga comité bu nek dina len recevoir recevoir seeni groupement de femmes ndax man lan dama ñurul lu dul développement de bu wax naa ko waxati ko nee naa ba tey ki nga xam ne jëlul salaire ca mairie ba jëlul carburant jëlul dara ca mairie ba kooku yaakaar naa ne xam ngeen ne li ko ñor mooy defar Louga te bi ma ñëwee ba léegi gis ngeen projet yi nga xam ne maa koy teg ci dëkk bi lamp yi. leer na quartier périphérique nga xamoon ne dafa enclavé woon désenclavé nañ ko ñu ngi jëm ci nii ci centre ville bi defar tali ba mu leer li ci des am na un programme boo xam ne programme bu deux mille lampadaires solaires la buñ ko jëlee ay cee dinañ am seen wàll dinañ am seen wàll ñu ko man yaakaar naa ne sama programme yi may def yëpp wax naa ko bu yàgg tey boo xoolee boulevard Abdou Diouf nga xam ne vraiment gis naa ne boulevard Abdou Diouf bi nga xam ne ba ko waxee yàgg na man naa xool boulevard bi mu nekk boulevard bi gën a dàq ci Sénégal comme dama demoon nekk réew taax nekk Paris gis boulevardu Champs-Élysées man amul lu Louga yaakaar lu rafet rek lu gën a ko war a indi. campagne présidentielle yaakaar dañ ko war a defal ba mel ne boulevard boobu. waxuma la waa Louga di fa doxante si mais waa Sénégal ñëw di fa doxante may gis moom ab projet ay programme yoo xam ne dafa kaa war a def war koo commencé war a aménager boulevard boobu ba mu rafet ñu am benn projet boo xam ne projet bu ndaw la rek ci projet yi war a nekk foofu muy projet bu doo buy door muy ay manège yoo xam ne suñu doom yi suñu xale yi ñoom ñoo ciy dem di fo comme ni gars yi demee fële ca Ndakaaru di fa fooyee mais dama bëgg bu ñuy politique vraiment ñu politique quoi amul solo mais loo xam ne pour développement Louga la vraiment ñu bañ cee foyee quoi ay politique développement ñëpp a ci war a jàpp il faut que ñuy xool njëriñu Louga di jiital njëriñu Louga bu ñuy xool suñu intérêt personnel bu ñuy xool nan lay def ba dafa am bës wala nan lay def ba yàq deru nit loolu amul solo li am solo mooy du ñëpp nañu bokk nday bokk bàyyi liggéey Louga may woo Birahim Tall di woo Ibrahima Diop di woo. Amar Amar Thiam ñoom ñett doomu benn naar yi ma leen di woo vraiment ñu ñëw ànd ak man parce que Louga ñu ñor la leen yóbbu Louga Louga kenn mënatu la leen naxati waa Louga weesu na état bu leen di naxee Louga li mu bëgg mooy ñu dëkk bi teg dëkk bi di yoon te ci lool la nekk te ci loolu la ñuy continuer incha allahu